tay mën nañ la wax tonne ñu leen jox ci engrais kan moo ko jël nañ ko séddale ndax dañuy def ki ko jël ñaata lañ ko jox mu signé def carte d'identité wax dëkk ba mu dëkk loolu bu la neexee kon mën nga fay jóge dem vérifier ji loolu. kon loolu nag dafa am solo ndax gouvernement buy def subvention dafa mu dem ci loxo béykat bi nga xam ne mooy béykat bu ndaw bi muy benn boo jëlee engrais noonu la nga jël jiwu pomme de terre par exemple noonu la nga jël agriculteurs yi noonu la ñu gis nag ne jeexital na ci mbéy mi xam nga ni ministère de l' agriculture ci loxoy professeur Moussa Baldé dafa encouragé ci jamono yi li ñuy wax contractualisation maanaam béykat bi jaay mu jar leen mbéyam balaa koo béy balaa ji mu jaay ñoom loolu la def fii ak Sénégal ñun direction de l'horticulture nag loolu ñu ngi koy jàngale ci projet bu ñu waa Japon bu ñuy wax JICA projet bu ñuy wax CHEP projet boobu li mu tekki mooy nan la ñuy fexe bu béykat bi moom boppam mën boppam mu jaar ci mbéy moo nga xam ne moom moo koy décider boppam ci xam kañ lay bay ak lan lay bay waaye day fekk mu xam kan la koy jaay ak ñaata la ko koy jaayee loolu projet boobu ñuy wax CHEP ñu ngi koy yaatal ci réew mi ànd ko ak waa ANCAR ak yeneen i kuréel jóge na ci fukki junniy tonnes ak juróom dem ci téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukk daaw ren ñu ngi xaar téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes lu mu néew néew gis ngeen tool yi ni mu mel te suñu borom gunóor amu ci yàq amu ci dara amu ci yal na def mu yegge ni ñu ko gisee bu loolu amee du ñu am lu yées téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes te ñu ngi soxla juróom-ñeent fukki junniy tonnes ci Sénégal at yëpp kon xam nga buñ ñu amoon fu ko dencee. mën nañoo jaay sax bitim réew pomme de terre kon dencukaay yi naaj ñëwaat léegi farata la.